ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jéggalu nag parce que ñun ñoo tardé yàq seen caravan ak seen rassemblement ñoo ngi ciy jéggalu parce que malheureusement démb ñoo ngi woon Diourbel ak Touba après ñu dem saint def benn émission ñëw moo tax mu jëwuñu ñëw fii à temps pour ànd ak yéen ci caravane bi fii ak njaañ ñu ciy jéggalu bu baax di rafetlu lii ñu fi fekk tey suñu jigéen la Léona Lika Diaw dafa am càmmiñam magam moo xam ne moo ñëw jàppale si ko dooleel ko fii ci njàmbur muy Pape masaar Ndoye Pape Massar Ndoye doon pour ñun modèle de militant doon pour ñun koo xam ne dafa bokk gëm-gëm te rafet engagement donc lii que mi nga xam ne mooy suñu njiglaay noonu laa ko tuddee am na renfort bu am solo moom ak xale yi mu doon boot njàmbur nag du dëkk bu njàmbure parce que dëkku bañkat lañu mais surtout dëkku ñu xam seen bopp lañu ñaari caractéristique moo fi am njàmbur dëkku émigration la soo demee itali soo demee France soo demee Espagne soo demee Maroc njàmbur njàmbur yaa nga fa mais doon ñu am fulla ñu am fayda mais surtout ñu am jom lima gën a jàpp ci ñoom mooy soo jógee Louga ba Kër Momar Sarr kër yi dëkk yi dañ koy bëgg a soppali ni France ak Italie ndax ay dëkki nag dëkkuwaay yu rafet ma ne diaspora bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant dama leen di wax ni vous la quatrième force vous êtes le quatrième instrument pour construire le développement du Sénégal il faudra que ñu boole leen il faudra que ñu xel ñu xejal leen il faudra que ñu wóolu leen parce que yàlla may na leen savoir faire am ngeen lu ngeen jële fii am ngeen lu ngeen jànge fële ñu yaakaar ne di ngeen ko indi fii pour participer ci développement réew mi yéen a ngi dimbale askan wi su Sénégal amul révolte yéen a tax presque mille six cent milliards ngeen di yónnee par at autant sinon plus que les partenaires techniques financiers yi li ñuy dugal ci Sénégal li ñu bëgg léegi mooy na diaspora bi doon un instrument d'investissement mën ngeen ko xam ngeen ko am ngeen xam-xam bi am ngeen yéene ji il faut que ngeen def un fonds d'investissement à partir de li ngeen am parce que Italie France Portugal Maroc dëkk yu bari suñu développé seen diaspora moo tax donc ma di leen invité en tout cas Khalifa Sall la République du yem rek ci toppatoo leen affaire këyit ak ngeen importer oto dañu bëgg seen xam-xam ak seen mën-mën ngeen ñëw fii ci mbay meeg sàmm geeg napp bi ñuy defaraat ngeen bo dindi ci seen wàll mën ngeen ko xam ngeen ko yéene ngeen ñu ko ñu ngi koy sàkku ci yéen njàmbur am beneen caractéristique dëkku diine ak daara yu bare bare bare bare macha allah bari sëriñ yu bari daara ñëpp xam nañ ni muy dind lu muy wunda pour am xam-xam la mais daara dafa war évoluer parce que ñun ñëpp ay doomi daara lañu li daara di ak accueillir ci xale moo ëpp li école yi di accueillir ci xale xale yooyu suñ leen jàngalee diine ba pare nañ ci boole léegi jàngal leen métier en tout cas man loolu laay ñaan ci suma kilifa ak waajur yi may tase lépp daara ji mën na jàngale diine mais ku fa génne war nga am métier bu njëkk bay la doon doon mais léegi mën na weesu bay mën na doon informatique mën na doon menuisier mën na doon mécanicien de telle sorte que xale bi su génnee du rek doon jàngalekat wala ustaas mais day am métier en tout cas waa Louga ñun ñi bokk ak yéen ñoo leen di ñaan ci ñaari fànn yooyu nga xam ne am na fi atu yu rëy il faut que ngeen ñëw jàpp ci parce que loolu moo am solo beneen bi nga xam ne mooy ñetteelu caractère yi ku Louga mooy nag su ngeen yéegee ba ci kaw mbay mi fii dafa am lu mu fi nuru woon amoon na zone maraîchère sooy dem ci kaw amoon na bord de de mer ñu bari defe nañ ni Louga amul bord de am ngeen bord de am ngeen dex soo ñëwee ba Kankéne parce que waa Kër Momar Sarr Louga la ñu bokk donc am ngeen ndox ndox moomu la ñu bëgg aussi ñu wutal ko nuñ koy exploiter parce que napp gi sàmm gi mbay mi loolu mooy ëllëgu Sénégal suñ ko dooleelee rek émigration bi wàññeeku suñ ko dooleelee rek euh, ndóol gi wàññeeku suñ ko dooleelee rek dëkk yi dem kanam suñu dëkk dem kanam moo wax ne waa Louga boromi baax ngeen dëkk bu barkeel la seen place ci Sénégal benn la fi en tout cas Khalifa Sall président la République dana fexe ba njàkku njàmbur doo yokk yokku

Très heureux de me retrouver chez moi, parce que je suis quand même d'ici. Je suis d'ici, cette zone, cette région, de toutes les richesses et de tous les possibles, dont les populations sont d'une fierté et d'un orgueil à tout point. Le Ndiambour est riche de ses enfants. Le Ndiambour est riche de ses activités. Aujourd'hui, ce qui caractérise notre région, c'est sa capacité en termes de fourniture de population de la diaspora. J'allais dire migré Non. Dans sa capacité à fournir à la migration un personnel et des personnes compétents, dignes et fiers. Et que Ce qui caractérise le Ndiambour et Louga principalement, c'est une diaspora orgueilleuse, travailleuse, sérieuse. Et chacun d'eux, chacune d'elles, s'enorgueillit de faire de son village une petite Italie ou une petite France. Ils y investissent lourdement, en plus de ce que la diaspora aide les familles financièrement, nous les invitons à devenir des vecteurs et des agents de développement. Il faut que la diaspora puisse créer une banque de la diaspora. Je l'appelle un fonds d'investissement pour que nous puissions avoir un quatrième pilier, c'est-à-dire une quatrième source de financement, mais d'investissement. Il ne s'agit plus pour la diaspora d'être euh, ceux qui financent la DQ, la dépense quotidienne ou les Hawaré et les... Non, devenez des agents de développement. D'autant plus que vous pourriez, par, le, par ce qu'on appelle la migration euh, circulaire, être des, des transmetteurs de connaissances. Vous avez des compétences en matière agricole. En Italie, en France, en Espagne, vous êtes partout, dans les champs, dans les vergers. Ce savoir-faire-là, nous en avons besoin ici. Par la migration circulaire, nous attendons de vous que vous veniez aider, capaciter vos parents, vos familles et vos compatriotes. J'y crois, moi. Et Khalifa Sall, le président de la République, verra avec la diaspora comment organiser cette migration circulaire qui sera un moment de transfert de connaissances et de compétences pour que notre agriculture puisse devenir moderne et efficace. Nous prétendons, nous postulons, nous souhaitons arriver à une autosuffisance alimentaire. Sachez que vous de la diaspora, vous y avez un grand rôle à jouer. Toutes les diasporas du monde ont aidé au développement de leur pays. Celles d'Italie, du Maroc, d'Espagne ont fait en sorte que dans le domaine de l'investissement, dans le domaine du numérique, dans le domaine industriel, ils, aient, ils ont contribué au développement de leur pays. Nous attendons de vous que vous veniez aussi par un fonds d'investissement investir dans ce pays. Vous donnez plus de 1600 milliards, c'est-à-dire autant que les partenaires financiers. Venez transformer ça en savoir-faire et en investissement. La région du Louga, le Diamour, se caractérise aussi par sa religiosité. par les daara notre ambition est de renforcer et de fortifier les daara mais surtout d'ouvrir leur spectre de formation que les daara puissent en plus de transmettre la religion être des vecteurs de formation professionnelle que les talibés puissent désormais être des mécaniciens des menuisiers et des maçons c'est-à-dire qu'ils aient un métier au lieu d'être que des oustas ils seront en même temps oustas et autre chose, donc plus. Enfin, je voudrais remercier les compatriotes de Louga. Je suis très heureux de me retrouver ici. Je m'excuse du retard parce que malheureusement, vous comprenez que la campagne est assez prenante et nous avons, nous avons eu une attitude qui vous a handicapé parce que vous n'avez pas pu faire votre caravane. On va essayer de tourner dans Louga avant que nous repartions pour Saint-Louis. Et je voudrais remercier très sincèrement notre euh, camarade Suñu Ndiglaay Lika Diaw qui véritablement est une personne de dévotion, une personne de dignité, une personne qui était là quand c'était difficile. Et je suis heureux de compter pour la soutenir, l'accompagner et l'aider. maam Pape Massar Ndoye. Pape Massar Ndoye est pour nous un modèle de militant, un modèle de dirigeant. Je suis sûr que désormais, l'ICA avec ses jeunes Tupamaros, parce que l'ICA a recruté et formé beaucoup de jeunes que je ne citerai pas, mais qui aujourd'hui permettent à notre plateforme d'exister. En tout cas, sachez que nous avons confiance, nous avons conscience du potentiel de Louga. Et nous sommes heureux d'accueillir aussi les camarades de notre ami Samba Wagne. Les Laobés sont parmi nous aujourd'hui, véritablement, parce que Tahaou, la coalition Khalifa Président, compte plus de cinquante organisations. Mais nous n'avons pour l'habitude de ne pas faire de publicité autour de ça. Les gens viennent travailler et nous travaillons ensemble. Donc je voudrais remercier tout le monde et dire aux camarades que nous sommes heureux de nous retrouver ici, dans ce lugar du de tous les possibles, avec la diaspora lougatoise, avec les populations et les jeunes de Louga. Inch'Allah. ca kanam rek ca je vous remercie. la président wax doomi Louga ah allo bi allo bi. waxoon ngeen ko. kuy wax da ngay xam ne kii borom xam-xam la kii jiitu réew la kii homme d'état la. waaw dama wax ni. ku ko mën ak kay jëm bokkul. xam nga état jàng nga état. président. Euh, asalaamaaleykum président. waaw dañu bëggoon rek xam euh, par rapport lan mooy sa intention ba tax nga euh, relier fi nga xamante ne mooy coalition président Khalifa 2024. parce que tout simplement. Euh, Khalifa Sall socialiste la. ndax tëj journaliste jóge fii. man comme sama idéologie ak sama doctrine. te moom rek laa gis ci mu nekk socialiste ba pare nekk homme d'état ñi fi nekk ñëpp moo ngi xam état donc il réunit deux qualités homme d'état la socialiste la loolu moo tax ma dem boobu moom naa ñëw sama bopp jàppale ko xam ni bëgg naa le bulletin vert dugaat ci urne di voter loolu la donc par rapport ak seen adversaire yi nga xamante ni mooy yenn parti yi nekk euh, fii Louga donc contrainte contrainte parti yi nan la nar a demee fii par rapport. non daañu def li ñu war def yëpp ba waxuma dañu kañ waaye li ñu war a am daañu ko am incha allah. incha allah xam na bu état bu baax a baax ak fi mu jaar jaar nekk na maire Dakar def fa li mu fa def nekk na président de l'association des maires francophones am na taxawaayu kilifa. loolu moo tax ñu jàppale ko te yaakaar naa ni soobee soobee dimanche euh, daañu ci am ndam alhamdulilah.